bismillahi irrahmani irrahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu del siwaat ci liggéeyal Sëriñ Tuuba ñu ngi woon ci waxtaane Sëriñ Tuuba yi muy téere bu fees dell njariñ nga xam ni Sëriñ Alxaaji Mbàkke Xaadimul Xadiim moo ko dajale ngir bëgg murid yépp jariñu ci yal na ko yàlla nangu ci barkeem te bégloo ko ci adduna ak alaxira jàll nañ xaaj bu njëkk ba kon ñu am pas-pasub delsiwaat ci xaajum ñaareel bi tey ñaan yal na ko Sëriñ Tuuba nangu tem doon mbégam adduna ak alaxira lii bi ci njëkk muy waxi sëriñ bi ci yéene Sëriñ Tuuba xaada lawo law maxtaar loo nee na boo bëggee jàng alxuraan na nga ci yéene génn ci mbooleem li la yàlla sunu boroom tànnalul ak dugg ci mbooleem lim la tànnal boo dee jàng ak xasida ci sama xasida yi mën nga ci yéene li la neex kon danga ko am bu fekkee ci ma def ginnaaw bi ma jugee jolof la walla ci at ma fa jugee waaye xasaayid ya ko jiitu moom déedéet boo dee werdu na nga ci yéene yàlla jariñ la ci adduna ak alaxara ci lu lor ak jige yàlla ak yonente bi alayhi salallahu taala alayhi bi alihi sabi jige gu jariñ te du la lor boo dee naafile na ci yéene dundal sunna su yonente bi salallahu taala alayhi bi alihi sabi wa saar yu gàtt yi yu la ci neex jàng wér na lool sëriñ bi nee ku bëgg yàlla jox ko lim bëgg ci adduna ak alaxira nay toppi ndigalam ku bëgg a toppi ndigalam ne yéene ndax yéene moo koy womat jëme ko ci topp ku bëgg yàlla di ko fegal lum ragal ak lum sib nay teet ay tereem ku bëgg a teet ay tereem na yéene ndax yéene moo koy wommat jëme ko ci teet tere yi wér na lool sëriñ bi mas nay laaj kenn ci ñim fi wàccoon bi mu demee ci géej gi kooko nangu ko wax la am lool sëriñ bi ni ko loolu wolof di wax saan wu dellu si xam nga ko mu ni ko waaw mu ni ko xanaa bañ koy wax saan wu baax taxul mu ni ko déedéet saan wa ca des kay lañ wax sëriñ bi ni ko saan wu baax day wa gën a rëy gën wér na loolu mooy li wolof di wax yéene néeg la borooma cay fanaan waxi sëriñ bi ci fonk ay waxam ak bañ koo waxal lum waxul innama yaftari lkadiba allasina laa yuminuuna bi ayati illah wa ulaika humu lkaasibuun sadaqa allahu maxtaar lahu nee na waxal waaju baax lum waxul léegi la waaye bu njëkkoon ku ko defaa buñ xëyee dañ lay fekk nga doon golo bi nga xamee ne yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama ñëw na la ko yàlla terale du defati loolu waaye ba léegi koo def atte booba mi ngi daw ci yow sëriñ bi nee na des na diir bu gàtt ku mën a wax ni sëriñ Tuubaa nee na te muy dëgg duñ nangu nga di ko waxe fi suuf fu kawe nga koy waxe siiw na sëriñ bi nee na diglu samay waxtaan jar na sol dalli weñ di dox bam xar siiw na sëriñ bi nee na damaa wax sama borom ni ko mbooloo mii ma topp di wuyoo sama sant di taasu ci sama barke dama bëgg nga wax ma li nga gën a bëgg ma sant leen ko ñu defal la ko saa borom ni tekk ba ma ni bu doon koy fàtte ma ni fàtte na ko ma dellu waxaat ko ko mu neeti tekk ma dellu waxaat ko ko mu ni ma fuñ toll di la waxtaane fuñ lay waxtaanee danaa leen fëttiim ak waamew xéewal di leen sot ba kero ñuy bàyyi ma door a sewet na waxi sëriñ bi ci julli inna solata kanat ala almuminina kitaaban mawquta sëriñ bi nee na ci julli farata lu dul alhamdulillah mu ngi mel ni nga dem ci kilifa ga nga gën a fonk ni ko dama laa soxla mu ànd ak yow ba ca bërëb ba mu gën a fonk àgg suuf ni la waxal sa soxla loo wax lu dul alhamdulilahi mi ngi mel ni nga séen janaab foofa wàcc ko fa daw topp ca wér na janaab mooy muus sëriñ bi mas naa sëlmal jullik timis wax ni bërëb ba ñuy dekkee ak ba ñuy daje daa sore lool koo xam ni daana taxawal julli juróom dañ koy defaral lu muy war ci yoolub ay julleem ba àgg fa ñuy dajee ku daawul taxawal julli juróom nag bu dekkee dañuy jàpp ci tànkam di ko diri ci kanamam wuti taxawaay ba wér na lool sëriñ bi mas naa selmal geeni dama ni koo xam ne julli da ko soxlaal walis mbir yi dana jariñu ci julli gi ak ci mbir yi koo xam ne nag mbir yi da ko soxlaal walis julli gi du jariñu ci mbir du jariñu ci julli gi jaamu yàlla mooy liggéey bi ñu sant aada yi nag dañ leen di dimb lekk ci jaamu gi faxu anfusakum wa ahlikum naara wér na lool aada yi mooy lu mel ni lekk ak naan ak nelaw ak takk soxna ak ak ak waxe sëriñ bi ci koor ak laylatul xadr kutiba alaykum siyaamu kama kutiba ala lasina min qablikum sëriñ tuuba xaada la wallaahu maxtaar loxo weeru koor daawul yónni ku wóorul daawu ko def loo dara weeru koor it ci la daan gën a bari lu muy joxe wér na lool am na taalibe yu doon dundal laylatul xadar ci tënk bi sëriñ bi def ba ko yégee ni leen du tay wax leen ca beneen bis tay jii la siiw na lii nag li muy war tegtale mooy lëm googu yonante bi sallallahu taala bi alihi wa sahbi wax waaye téewul ñu war di topp tënk bi sëriñ bi def waxi sëriñ bi ci asaka am na ku ma sa jóge fu sori ñëw jox sëriñ bi xaalis bu bari ni ko asaka la sëriñ bi ni ko dellul fa nga jóge woon am na juróom ñett ñu alxuraan tudd koo ci gis nga jox ko ko waxi sëriñ bi ci tuub وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون سرين بي نينا دومو آدم نيار رك كلام يينه اك توب لي باخ بو فكي دا بري با مونو فوتا ديف ليب لا nga man ليب دان كوي ديف لا تيا ديس nga diko yene بوكو ديفه ني ديف لا nga yene ني لا nga ديف ديلا كو فاي li bon itam bu fekkee daa bari ba mënoo futa ba lépp dangay ngay bàyyi la nga man la ca des nga di ko tuub su ko defee danañ ko far te luñ far ak luñ bindul ñooyam wér na Sëriñ Tuubaa xaadaloo la maxtaarloo nee na ki nga xam ni dañ koy jëmale ci lu amul njariñ ginnaaw tuub gu sel mu ngi mel ni ku wàccu ba noppi ñu lekk loo ko ko ki nga xam ni dañ koo jëmale ci lu xaraam wala luñ sib ginnaaw tuub gu sel mi ngi mel ni kuñ lekkloo ay xal walla ay jiit bu leen ku baax woowee ci ñam wu baax nangeen lekk waaye ku leen bëgg a lekkloo am wàcc wala ay xal wala ay jiit bu leen nangu wér na lool waxi sëriñ bi ci ndigal yi ak tere yi inna akramakum inda allahi atqaakum saddaqallahu alasim sëriñ bi mas naa laajte ndax xam ngeen al iman ak islaam ak ihsaan ñu ko dégg nañ ñu di ko wax mu ni imaan mooy lépp lu am nga gëm ni yàllaa ko dogal lislaam mooy lépp loo am nga génn ca wàllu yàlla ihsaan mooy lum dogal mu neex la wér na lool sëriñ tuuba xaada lahu llahu maxtaara lahoo mas naa laaj waf xalool xayra nu ngeen koy firee ñu ni ko waf xaloon na ngeen def alxayra aw yiw mu ni ñu koy def ñu ni cell mu ni waf xaloo juróom ñaari xaraf la alxayra juróomi xaraf la juróom ñaari cër yi lañ wax ni sax leen ci juróomi ponk lislaam yi te bu leen ko ba wér na sëriñ bi mas naa laaj ndax xam ngeen waajib ak manduub ak mu baax ñu ngi ko ñu ngi koy dégg mu ni ndax xam ngeen luy seen waajib yéen ñu ni ko déedéet mu ni mooy wàcc lal yi te dem ci der yi jaamu ji yàlla daal ni xam ngeen luy seen mën dóob ñu ni ko déedéet mu ni mooy wàccandiko ndamu bañ ni démb la bis penc daal ni xam ngeen luy seen mu baax ñu ni ko déedéet mu ni dara dara dara daal ni dara ju njëkk ji mooy sunu borom mii nu bind ko xam ci moom dara du def lu muy tere ndax moo boole xudratu ak iraada te bu yëkkatee yaram ba ba kenn du ko tere dara ji ci topp mooy adduna ji ñu nekk te xalsat fee jóge ku xam ci moom dara doo ko jox sa dara ndax loo ko jox ñàkk nga ko dara ji ci topp mooy alaxira jee ñu jëm te di fa sax ba faw ku xam ci moom dara doo fa dawal dara ba naw ko ndax dara du fa doy wér na xudratu mooy kàttan iradatu mooy nammeel dawal mooy jiital am na koo xam ni dadaa def saa su toogee ci sëriñ bi di bind kun fa yàkkoonu am bi sëriñ bi jàpp ci mbàggam ni ko min husni islaamil mar'i tarkuhu ma la yahnihi ni ko boo mënta ñàkk bind deel bind alkatibu xaraamun wal xibatu xaraamun wan namimatu kadalika wér min husni islaamin mari ba wax loolu jeex mooy bokk ci li rafetal ak njullit bàyyi lu amalul njariñ alkasibu xaraamun mooy fen xaraam na wal xibatu xaraamun jaw xaraam na wan kadalika rambaaj noonu ñu ñëw ci ñaar fukkeel bi sëriñ bi nee ba sunu borom waxee laa ilaha illallah ñëpp dañoo galam ndax xamuñ nu ñuy jaamoo yàlla te xamuñ dëgg-dëggam mu ni muhammadu rasulullahi maanaam moo leen di wan yoon wi ngeen may jaamoo daa di wax yonente bi salallahu taala alihi wa sallam yaa ayuha rasulu balix yonente bi salallahu taala alayhi wa jottali ni lu war ak luñ sib ak lu dagan te am njariñ ñooy yooni ajjana lu xaraam ak luñ sib ak lu dagan lu yàq ñooy yoonu sawara teg ca ni wa ma aatiyakum rasulu fa xuduuhu wa ma nahaakum fantahu wér na lool am na ku masa ñëw ci Sëriñ Tuuba xaada lahoo laahu maxtaar lahoo ni ko dama bëgga doon boroomi may mu nu ko bindal mooy mu bind ko mu ni ko tàllalal masque gi mu tàllal ko muy may mu ni ko ku bàyyi lii lii ñëw wér na sëriñ bi nee na boo xamee ni yàlla am na kàttan ba noppi digal la dig la tere la tëkku la te mu wóor la ni mën na lépp fokk ngay jëf ay ndigalam di bàyyi ay tereem boo xamee itam lu ko neex mu am doo jiime wuuteeg moom kon saa soo xalaatee lu baax def ko boo xalaatee lu bon gaawal tuub ko ndax yàlla xam na lépp te mi ngi ànd ak ñëpp te mi ngi doon dund ba kenn dundul ak bi ñuy dund bu ñëpp faatoo day dund te du faatu mi ngi dégg mi ngi gis wér na lool sëriñ tuuba xaada lahu law maxtaar lahu nee na yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa mooy kilifa ñi ragal yàlla ñëpp am na nag ay dëkk ak réew ak jëf yu muy jëf bu nekkee ca biir réew yooyu ak dëkk yooyu am lum fay dunde aku njaboot réewam yooyu mooy imaan ak islaam ak ihsaan ay jëfam mooy warteefi ak yiñ sopp ab dundam mooy yu dagan yu am njariñ yi ak njabootam ñooy almuminuuna ak muslimuuna ak muxsinuuna ak muminaatu ak muslimaatu ak muxsinaatu yi itam mooy kilifa ñi texee di ñëpp moom it noonu la ko amee ay réewam mooy weddeeg caay-caay ak bokkaale yàlla ay jëfam mooy yiñ xaraamal ak yiñ cib ab dundam mooy lu dagan lu yàq ak njabootam mooy yéefar yu góor ak yu jigéen ak saay-saay yu góor ak yu jigéen yi wér na lool nee na lii ci lawxul mahfuus la ko tuxale sëriñ bi nee na bu leen jox seeni yiw ñu baax ñi wala ngeen di yanu ñaaw teefi ñu bon ñi ndax ku ayibal waaju baax jël na aw yiwam jox ko ku tooñ ku bon yanu na ay ñaaw teefam wér na lool sëriñ bi nee na mucc ak jàmmi adduna ak alaxira mi ngi juddoo ci yéene aw yiw ak wax ko ak def ko ak takkoo ko loolu laa boole ci way wii in wi waxul wafal walazim taslami mukarraman rumil ola bi kalimi wér na lool sëriñ bi neena na daw jëm ci yiw wépp yiw daw jëm ci moom ku daw jëm ci ludul aw yiw wépp lor daw jëm ci moom fa firru ilallahi jamia wér na lool sëriñ bi nee na mbooleem li ngeen bëgg na koy wute ci topp yàlla mbooleem li ngeen ragal na koy fege ci bàyyi mooy yàlla képp ku daw jëm ci lu lu neex sunu boroom lépp lum bëgg daw jëm ci moom ku daw jëm ci lu lu neex sunu borom lépp lum ragal daw jëm ci moom wér na lool sëriñ bi nee na boo dee gis yàlla ci lu ne mu di la may aw yiw ci lu ne di la fegal lor ci lu ne ndax moo bind lu ne loo ko gis mu def ko buntu bu lay àggale ca moom loo ko gisul mu def ko kiiraay luy dox sa digg ak moom wal xiyaasu billah wér na lool sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahoo maxtaara lahoo nee na xol ak làmmiñ ak mbooleem cër yi ci des ku ne am na ab dal ak lu muy dunde dalub xol mooy wéetal yàlla ab dundam mooy yéene lu baax ak di xalaat xalaat yuñ gërëm dalub làmmiñ mooy tudd yàlla ab dundam mooy wax lu baax cër yi ci des seenub dal mooy lu war ak luñ sop seenub dund mooy lu dagan lu ñuy dimbandikoo ci lu war luñ sop wér na lool Sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaarloo nee na ku xam ni yàllaa ngi ànd moom fu mu nekk muy toppi ndigalam yàlla di ko teral ko xam ni yàllaa ngi ànd moom fu ne muy teeti tereem yàlla di ko musal yàlla ngi ànd ak ci di leen digal ak tere kon na ngeen ànd moom ci topp ay ndigalam ak bàyyi ay tereem ko ànd moom ci topp ay ndigalam muy ànd moom ci teral ko kuy ànd moom ci teet ay tereem muy ànd moom ci musal ko wa anjayna allasina amanu wa kanu yattaqun inna allaha maa allasina taqaw wallasina hum muhsinun wér na lool sëriñ bi nee hitte mën naa tax loo waroon a am cim at nga am ko ci benn fan siiw na sëriñ bi nee na yàlla daa digle dige tere tëkkoo bokk na ci rafet njot di def lim la digal di yaakaar àjjana di daw lim la tere di yaakaara mucc ci saraan bokk na ci topp njott bàyyi topp ndigal di jëfe tere ànd ak di yaakaar ak texe wér na lool sëriñ bi mas naa sëlmal takkusaan ni ku bëgg a tàbbi àjjana na jublu yàlla ci topp ay ndigalam ku bëgg a mucc ci sawara na jublu yàlla ci bàyyi ay tereem wér na lool sëriñ tuuba xaada la wala maxtaar la nee na lépp lu toq ci seenum xel wala mu yëngatu ci seeni làmmiñ wala seeni cër loola aw yoon la xool leen nag bu baax fan la leen jëme bu dee luñ digle ajjana la leen jëme bu dee luñ tere sawara la leen jëme bu dee luñ digle wul tere wuñ ko nag ca àll ba la jëm bismillah yóbbuloo leen loolu wér na lool sëriñ bi nee na yàlla mi borom mi ndeefi digle na dige na tere te ko tegtal na leen li leen di àjja àggale àjjana ngir ngeen topp ko tegtal na leen li leen di àggare sawara ngir ngeen moytu ko wér na lool sëriñ bi mas naa wax maam ceeno fere yi ñi ngi ci ndigali mu ni ko waaw mu ni ko buñ ko bokkee yewenal ma bokk faj seen aajo ni ko bindal ñaari wama mu bind ko mu ni foofu ma leen naxe laala bëgg a xamal bi ma gisee wama min dabbatin fil ardi illa alallahi risquha nga xam ni sunu borom moo gàddu lépp gis wama xalaxtul jinna wal insa illa liyabudun nga xam ni gàdd gàddulu ko kenn laa bàyyi lee mu gàddu nekk ci lim gàdduwul diir bu yàgg ca lool ba mujj mu ni ma ahmadu yaa ngi ci li ma gàll bàyyi li ma la gàddul ma ni ko waaw mu ni mu ni ma xam nga lu ma lay faye may naa la ñëpp wér na sëriñ ma bab nji njaay nee sëriñ bi mas na koy ñaanal ñaan gu yàgg bam tiflee ni ko boo demee bu kenn mën a dox sa digg sa boroom dégg nga li ma wax ñetti yoon mu ne ko incha allahu jug sëriñ bi woowaat ko ñaanaan ñaan gu gudd tefli ni ko boo demee bu kenn mën a dox sa digg ak sa borom dégg nga ñetti yoon mu ni ko incha allah sëriñ mu ni ko mën ngaa dem ba muy de dem wax ci xelam lii day lëf la sëriñ mu ni ko looloo tax ma bëgg laa yóbbulul aggal suuf sunu boroom moomu ma lay wax saa soo nee ko ananga mu ni la maa ngi nii nee na mu ni ko luy ana sëriñ bi ni ko mooy sax ci lim la digal mu ni ko luy maa ngi nii sëriñ bi ni ko loo bëgg mu di la ko defal wér na sëriñ Tuuba xaada lahoo laahu maxtaar lahoo nee na nuyoo ñeenti baat la assalaamu aleykum wa aleykum salaam mbaa jàmm ngaam jàmm rekk nee na assalaamu aleykum bi nga koy wax ki ngay nuyu yaa ngi koy wax mbaa yaa ngi ci ndigal waaleykum salaam dani la waaw nga ni ko kon danga am jàmm mba jàmm nga am jàmm rekk danga nga ni ko mbaa laaloo lu ñuy tere mu ni waaw nga ni ko kon danga mucc si ngeen joxantee loxo ba noppi ka gën a xam yàlla moroomam na daldi nekk te lum yàgg-yàgg bu leen fa wax lu ñuy tere wér na lool sëriñ tuuba xaadalahoo law maxtaaralahoo nee na taalibe bu sax ci ndigal mi ngi mel ni gàtt buñ teg ci loxob sardi bu saxul ci ndigal mi ngi mel ni gàtt boobu ñu teg ci loxob sardi mu ni ko fa yaax di seet fu gën a naat su ko defee mën na faa gis jur gu mel ni moom guñ sàmmut teñ ëpp ko doole foofa te du lu dox seen diggante wér na saddi mooy ab sàmm yaax mooy wàcc gu gaaw sëriñ bi nee na ñaar ñoo gis kenn kadaa am lum bëgg di ko wut ka ca des am lum ragal di ko daw kookee di am lu muy wut nee ko li ko gën a noppal mooy mu sax ci ndigali ndax ñoom it ñi ngi seet ku sax ci ñoom bañ defal la la nga bëgg kookee di daw lum ragal itam nee ko mu toog te bàyyi tere ndax mbooleem li muy daw mi ngi seet kuy defi tere misaalam mooy kaso bañ koy tabax néewuñu ni kenn kuy def tere rek moo ko tax a jug wér na wax jooju nee ne ki doon nettali moo ko ci yokk maanaam ngir ak xay loolu xëy na Sëriñ Tuubaa xaadaloxo law maxtaar mas naa juge ca jàkka ja jubale ca daara ja ba mu agsee ni leen mbaa biddantiwu leen ñu ni ko déedéet mu ni ku bëgg wërsëg du ko def daa ni na ngeen def bëgg ngeen tula ñu ni ko waawaaw mu ni ndaw daana ko bëgg xam ngeen ko ñu defee ni lu ñu bind la mu tomb ñetti tomb bul yéene kenn lu bul def kenn lu bon bul wax kenn lu bon bu ko defee loo xam ni waaye yéene na la ko wala mu wax la ko wala mu def lu ko ca waaja rek lay dellu wér na sëriñ bi neena na soxla woo leen la leen di gunge ci bàmmeel di leen fa wettali bala ngeen caa dem te mooy jëf ju yiw imaan ak islaam ak ihsaan nag moo leen di gunge imaan mooy nga bañ a bokkaale yàllaak ak dara islaam mooy loo man ci liñ la digal nga def ko ihsaan mooy boo koy def buñ ca àndee yow nga def buñ ca àndut ak yow nga def wér na lool sëriñ Tuuba xaadalaho law maxtaarloo mas naa laaj benn waay foo nekk muy waxi dëkk sëriñ bi ni ko man day léeg-léeg may laaj kenn foo nekk muy tudd dëkk dama bëggoon ku ma ci laajati rek mu ni maa ngi ci waajib maa ngi ci waajib ak man doob di sonni noppali ci mu baax daal di ni gees sëriñ bàññi ñaay ni ko ana yow foo nekk mu ni mu ni ko maa ngi fa nga ma bawoon mu ree ni ko waa joojoo la sax waaye kon loolu mu wax ngay wax wér na waajib mooy lu war mën doob mooy luñ mu baax mooy lu dagan sëriñ tuba xaadalahoo la xaadalahoo law maxtaar loo nee na al iman ak islam ak ihsan bu diine dee càll ñetti jaaro lañu yoo xam ni benn mënu cee dem wàcc sa morom ndax bañ santaane ñépp am imaan bu ñu waxutoon ci xol kum neex nga ni ñokket ni ab jullit la waaye boo ko waxee ñu la imaan ci xol lay nekk waaye bu fekkee imaan ci xol lay nekk te xolam kenn gisu ko dañ naan nañ seeti lislaam te mooy ay toolam ñu ñëw fekk ko ñaq wa ca bopp ba ba daanu ca tànkee ñu ni wax na dëgg nañ seeti insaan te insaan ci lépp lay nekk ñu xool jëfam lépp yàllay kese tax ñu ni wax na dëgg wér na sëriñ bi nee na li fi nekk mooy lu mat a def ak lu matut a def ak lu ëpp def li mat a def mooy jaamu yàlla dana la jariñ ci àdduna ak ca àllaaxira li mët a def mooy fo du la jariñ ci àdduna du la jariñ ci àllaaxira li ëpp def mooy mooy yàlla dalay xalak ci adduna xalak la ci alaxira wér na waxi sëriñ bi ci xam-xam innama yaxsha allaha min ibadihi alulamaau inna allaha xasisun xafoor sëriñ Tuubaa xaada la la maxtaar loo nee na xam-xam ñaar la buy jariñ ak buy lor bii jariñ dalay wommat jëme la ajjana bii lore dalay wommat jëme sawara wér lool sëriñ bi nee na xam-xam ñaar la bi lay jariñ ci àdduna ak alaaxira ak bi la dul jariñ ci àdduna ak alaaxira bi lay jariñ ci àdduna ak alaaxira mooy li nga xam ci lu baax di ko def ngir jëmmi yàlla ak li nga xam ci lu bon di ko bàyyi ngir jëmmi yàlla bu nit dee génn àdduna lu dul ñaar yi du ànd nag moom lim defoon ci lu baax moo koy tàbbal àjjana lim bàyyi woon ci lu bon moo koy musal ci sawara lu dul ñaare xam-xam yi nag day jóge ca ko xam dellu ca téere jóge ca téere dellu ci alxuraan jóge ci alxuraan dellu ci dellu ci lawhul mahfuz lii mooy xam-xam bi ñuy wax ci alxuraan moo tax sunu borom di wax naan waxul rabbi zidni ilman ak kam min fi'atin xalilatin galabat fi'atan kathiratan bi isnillah daa di ni li tànnkat bi tànnal kañ tànn mooy lañu tànn ci mbooleem yëf yi te mooy xam-xam bu am njariñ wér na lool Sëriñ Tuubaa xaada lahum lahum maxtaarloo nee na xam-xam bokku la xam yàlla bokk na ci misaali xam yàlla sunu boroom boo gisee aw jiwu xam fa muy mujj bu saxee ndax dana rafet ak dana ñaaw ak yeneen ya sosu wér na lool sëriñ bi mas naa woo maam Ceerno boo kook ay nit ni ko dama bëgg nga ànd ak ñii ngeen dem raxasal ma sama der mu ni ko mu yow sab der am na lu ñuy raxas mu ni ko aha kay doomi soxna yi dañ ni dama fay jàngu yi ma bëgg nga ànd ñii xamal leen li ma la xamal su ko defee danañ xam dama fay jàngu yi am dama ko taal daa di wëlbati ko ca ni leen njàng mi ma leen digal dama bëgg mu bañ a yàq ci liggéey bi dara dama bëgg ngeen doon paaka te bañ a doon gobar paaka day dagge ñaari wet gobar genn wet wér na am na ku mas a jox sëriñ bi ab kaamil mu ni ko lu jàng xewi xewi téere yi na leen jàng door a jëm fooy jëm al axdariyu risaala al ajromiya ak sanosi loolu mooy gàttalu nettale bi wér na waxi sëriñ bi ci sant ak muñ innama yoofa saabiruuna ajrahum bi xayri xisaab washkuru li wala takfuroon am na ci taalube yi koo xam ni sëriñ bi da koo wàcce woon waaye mutaa am ak njëbbal ba mujj muy ñaxtu sëriñ bi dégg ko woo ni ko mën day dama yaakaar ne koo xam ni laataa muy ñëw ci yow sunu borom da koo defaral ab gétt ca sawara te dogo ni dana ko ca tàbbal nga di ko tinu ba mu dal ko àjjana te dootu ca jug daa war a sant waaye wata xarab mu ni ko tuum naa ko wér na sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaarloo nee na bu ngeen xamoon li ci màtti yoo dana jàppandi ci yéen te da ngeen ci sant yàlla sunu boroom wér na lool yooyu mas nañoo bari gànnaar lool sëriñ bi wax ni bokk na ci mbir yi gën a gànjaru mbir moo xam ne ci ay tegtal yu la koy tegtal rek nga koy xame ndax lu ne am na sabab waaye maa ngi leen di dénk tuub ndax yàlla ci lay fare ñaawteef yi bu ngeen bëggee tuub gëgg gën rafet nag bis bu ne na ngeen yéenee def li leen yàlla digal ak bàyyi lim leen tere bu ngeen defee loolu rek yàlla dana leen dimbali ci topp ndigalam te bu ngeen defee ab rëcc rëcc mu jéggaleen dee leen yéene aw yiw nag ci mbir mu ne wér na lool sëriñ bi mas naa ñëw dëkk bu ñuy wax wàjja bam toogee ca penc ma dégg jigéen ju jooy mu woolu ko mu ñëw mu laaj ko looy jooy mu ni ko dama amoon benn doom bu jigéen mu dem ba toll ci dem kër mu faatu sëriñ bi laaj ko ndax dañ la ko dénkoon am dañ la koo mayoon mu ni ko xanaa dañ ma ko dénkoon sëriñ bi ni ko dénkaan luñ la dénk dem ba di ko fopp ku ne di ca dégg sabaat day mel ni danga ko fasul woon a delloo wér na lool sëriñ bi nee na ku dul tooñ du fayu yaa ngi ci siŋe su amul bunt saa soo tàmbalee fayu sàqi nga bunt daldi ni dama mus ci ñu tooñ ma ma muñ loo xam ni moo tax ma di leen digal kuñ tooñ mu muñ ndax dañ ma tooñ ma muñ ñu fayul ma fay ma wér na sëriñ bi nee na bun la tooñee nga muñ ngir yàlla yàlla dalay fayul tooñ gi fay la muñ gi wér na sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaarlawoo nee na bim nekkee ma yomb am na bis ab commanda ñëw ni ko yaway Ahmadu Mbàkke mu ni ko waaw mu ni ko mbaa nga ni liñ ma sant ceew danaa ko def sëriñ bi ni cell mu waxaat ko ko ba mu ñetti yoon sëriñ bi ni ko manit li ma saa borom sant danaa ko def mu ni ko lu la sa borom sant mu ni ko loo ma defa muñ ko mu ni ko loolu ñëpp la ko sant ndax moo ni inna allaha maa sëriñ bi ni ko waaw waaye maa ko ci masa def siiw na inna allaha maa sabirin jooju tubaab bi wax xëy na da koo laajte ba xam ko door ñëw ci sëriñ bi ndax ñoom yu mel noonu daan nañ ko def ngir xam guñ xam ay tontoom bismillah barke Borom Tuubaa waxi bi ci xol yawma laa yanfahu maalun wala banuun illa man atallaha bi xalbin salim sëriñ bi nee xol bu dee wëndeelu ci xalaat nguurug sunu boroom gunna bugi bu del yu fàddu lay àndaale waaye bu dee wëndeelu ci yuñ xaraamal ak yiñ sib bu del see ay xayb rekk lay àndaale wér na lool sëriñ bi nee ab xol bu ci nekkul te ay xaraf yu bari nekk ci da koy dolli ak muuru rekk misaalam mooy garab gu wex ba noppi naat naat ga da koy dolli ak wex rekk bu fekkee nag aw yiw ku texe ma nga ca xol ba bu ca ay xarif yu bari nekkee da koy dolli ak leer akuk niitit mel ni garab gu neex i meññitam naat xikam nag saa su tàbbee cim nopp ba jàll nopp ba ba àgg ca xol ba ñaawteef wu sax da koy dàq daldi tasaaroo ci yaram wi su ko defee boroom xol ba nekk ku yiw amuk texe wér na lool waxi sëriñ bi ci bëri wax man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri falyaqul xayran aw liyasmut hadisun sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaarlawoo nee na nit ñi ñetti xaaj lañ ku yeewu ak ku dof ak ku gàtt xel ku yeewu mooy kuy jaay wurus ci lu ko gën a gànjaru ndax day wax lu baax ci làmmiñam wala muy sikkar wala mu noppi ab dof nag mooy kuy jaay wurus ciw xal wala jaan wala jiit ndax day bàyyi wax lu baax ak sikkar di wax lu bon wala muy jëw ak a waxi caay-caay ku gàtt nag mooy ki nga xam ni day jaay wurus cib doom wala suuf wala ay sagar yu rab wala ñax ndax day bàyyi wax lu baax di waxi neen ak lu ko amalul njariñ wér na lool waxi sëriñ bi ci ku bëgg ak àgg ca yàlla wa man taallaxa bi waasilin wasal wa man taallaxa bi aksihin fasal loolu aw bayit la sëriñ Tuubaa xaadalowoo law am na ku ko masa wax dama bëgg a àgg ca yàlla mu ni ko ndax mokkal nga isaa jaakal munaafiqoona ba mu jeex mu ni ko waaw mu ni ko taril mu tari ba àgg ci xaaloo nashadu mu ni ko taxawal ñeent yooyu moo dox sa digg yàlla an nafsu al shaytaanu al hawa ad dunya wér na lool xarafi nashadu la koy juñu noonu sëriñ bi nee luy àggale ca yàlla sunu borom buntu la lu dul àggale ci yàlla kiiraay la wér na lool waxi sëriñ bi ci ku àgg ca yàlla lillahi xad wasaltu inda galwa wasaanani amma yajuru balwa loolu aw bay la sëriñ bi nee na ba lislaam feeñee ba yowmal xiyaam mbindeef mu taxaw wax ni yegg na ci yàlla ni ma yegg ci yàlla ni leen ko fen nga wër na su ko defee nettali yu sëriñ bi da ko daan wax ngir waxtaane xéewali yàlla yi ngir lu sunu borom wax ni wa amma bi nicmati rabbika faxadis sëriñ Tuubaa xaadalahoo la maxtaaloo nee na ab jaam bu jubloo boromam di topp ay ndigalam di bàyyi ay tereem bàgg ca moom bu ko nee saa borom dama bëgg nangam mu ni ko sama jaam bi jël ko bu ko nee dama ragal nangam mu ni ko bor ragal mucc nga ndax moo bind lépp te mën na lépp bu fekkee lam bëgg lum ko tànnal la mu dal di ko koy andil nam ko bëggee wa ilaa mu wootoo ko leneen lu ci moom bu dee lum ragal la itam mu dàq lépp wala mu dàq lam cay ragal ba mel ni sawara sun maam ibrahima wala géeju muusa alayhim assalaam wér lool waxi sëriñ bi ko xam yàlla alaamatul aarifi billahi alkarim xalbun muwahidun bi shukrin laa ma tawajjuhi ila rabbin kaafi fi shiddatin wa amanin akkaafi loolu ñaari bay la sëriñ bi nee na ko xam yàlla buy wommatub jaam day dox digganteem ak seytaane di ko boole yàlla sun worom wér na lool waxi sëriñ bi ci waruk am ab sëriñ yaa ayuha allasina amanu attaqullaha wabtaxoo ilayhi alwasira bi nee na ku jublu yàlla yàlla jubale la wépp yiw ku jublu kudul yàlla yàlla jubale ko wépp lor ni ngay jubloo yàlla nag moo di nga wut sëriñ bu lay xamal li nga war a def ak li nga warta def ci topp ndigal nag ci li la mbooleem yi àggalee ci ci yàlla di jubloo ci li la gàllankoor yépp di dëddoo wér na lool waxe sëriñ bi ci njariñ yi bari looy siyaare sab sëriñ laa yantaxi le darari waziru wa bi yahdi llahu man yasuuru sëriñ Tuubaa xaada lahoo la maxtaara lahoo sëriñ Masamba Jóob Saam nee na mas naa guddi am lu mel ni dañu ko yeexa wuy dana delloo ab cer mu jug julli ñaari rakka tëddaat amaat lu tolloog moom ni ko wàllu moom loo su ko mu daal di jug takk wuti njaareem bi mu agsee fekk sëriñ bi di laajte ndax agsi na bi mu nuyoog sëriñ bi wax ko ak jaaxleem ak lim dégg sëriñ bi ni ko ma sàmba day def bu ma jekkee ba samam xel dem ci kenn yéen fere yi buñ mënee am ndaw lu ko mën a dab ci saahir dab ko bu mënta am noonu rekk lañu def boo gisee ñuy woo kenn ci yéen nag juróom yi juróom benn yi ñooy ñëw fi nun boo gisee ñuy woo kenn ci yéen nag juróom benn yi ñoo ñëw ci nun muy al anwaar al asraar al barakaat al manafihu xuyóoru dunya wal axira ni ma saa boroom moonu yabal si nee nga boole ñoog diw bu boobaa bu ma gees yam ci diw mooma nag du ma def lu dul jox ko ko moo tax faral fii siyaare si di baax bu ma gisil diw moom nag def pexe yum ñëwe juróom benn yooyu nag dañ fi dul toog day def bu ne bu ñu bëgg a dem te duma bëgg ñu dem ma daal di koy jox keneen su ko defee bu ko ko ñëwee lañ koy jox mooy nuru ay garit loolu mooy waliyu moom loo su ko aw des yéexe wuy ji dana delloo ab cër nag mooy loolu ñu jox keneen wér na lool fere yi mooy taalibe yi al anwaar mooy ay leer al asraar mooy ay sekkare al mooy ay njariñ xuyóor duniya wala xeeti yiw adduna ak alaxira niskiis mooy ba ci kanam gaarin mooy desiiti ndab waxi sëriñ bi ci bërig wali yi ak malaaka yi wa ma yaalamu junooda rabbika ila huwa sadaqallahu asim sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaarlawoo nee na malaaka yi ak wàlli kenn xamul niñ day ku dul yàlla mi xam wa ma yaalamu junuuda rabbika ila huwa wér na mas naa am naar bu ñëw ci sëriñ bi xumbal kàddoom lool sëriñ bi yabal sëriñ ma bañ mu xool ko naar ba ni ko nee ko taajul aarifina moo bëgg gis sëriñ bi sëriñ bi ni ko nee ko na muñ naar bi ni ko nee ko mënumaa muñ sëriñ bi ni ko xanaa kon nam waxe du ne nee ko alaarifuuna laa yatanaasaun ba mu ko ko waxee mu jàpp ci loxoom ni ko sammaani abi bi haazal ismi tafaulan laa xayru sëriñ ni ko waaw kay waaye alaarifuuna laa yatanaasaun wér na taajul aarifin mooy kilifa ña xam yàlla laa yatanaasauna duñ xëccoole firi sammaani abi bi haazal ismi tafaulan laa xayru mooy sama baay moom ma tudde ngir mébét lu baax rek waxi sëriñ bi ci saxaaba yi ashaabi kan joom bi ayihim uqtadaytum ihtadaytum hadisun sëriñ Tuuba xaadalawoo la maxtalawoo nee na saxaaba yi seeni pas-pas ak seeni yéene ki wax ak seeni jëf ak seeni jikko lépp ci yàlla sunu borom la jublu te ci la jëm wér na lool waxi sëriñ bi ci alal واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم صدق الله العظيم sëriñ bi mas naa am am naar bu dogu bis ci mu yeewi ko ba sonal bi lool am taalibe bu ko xaw a xiit mu ni këlañ tëdd sëriñ bi wax taalibe ba wa ma ana bi taaridil mu'minin lii nga ma defal na nga ma ko mujj defal tey daal di faxasal naar bi suuf si ni ko jigasil yaa ngi fi nekk ñëpp ñu daal ñëw mu ni leen gis ngeen kii nga xam ni daa bëgg a dox sama diggam lii may def ngir bëgg a jot ci soxlaam dama bëgg ngeen xam ni alal jii yéen ñi ko fi andi ak ñi ko fi laaj si yéen képp a yem ci man ndax ñi ko fi indi lañ jublu xam nañ ko xam naa ko te danañ ko am ñi ko fi laaj si itam alal day loo xam ni day yeew boroom ba bàyyi ko fi barab koo xam ni dala koy laaj nag daa mel ni ku ngàbbu ab paaka di la daggal buum googee la ñooñ wéy na wa ma ana bi taaridi mooy duma duma kuy dàq julli ñi ñooñ mooy yeew waxi sëriñ bi ci doom wa warita suleymanu daawud wa qaala ya ayuha annaasu alimna man ti xa wa utina min kulli shay inna haasa la huwa alfadlu almubin saddaqa allahu alazim sëriñ tuuba xaada lahu maxtaar lahu nee na doom ñaar la doomi xol ak doomi ndigg doomi xol mooy donn mbir doomi ndigg mooy donn alal wér na lool waxi sëriñ bi ci mbokk waxbudullaha wala tushrikuhu bihi shay'an وبالوالدين إحسانا وبسي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله العظيم سرين توبا هذا له مختار له نينا أخن فخن mbokk كم أكفير لا la nanguwul lu ko sëriñ bi daana tomb fukki tomb ak juróom benn yoo xam ni ñeenti tomb yi ci lay firee ya ca des ñeenti tomb yi mooy yàlla mi la bind ak sa mbokkum jigéen ñaare ak sa mbokkum taalibe ak sa mbokkum dëkkaale yàlla mi la bind lum digle nga def lum tere nga bàyyi lum dogal mu neex la sa mbokkum jigéen ñaale bokk yéene bokk pexe bokk lu ngeen am sa mbokkum taalube soppante wóolante dimbulante jàmbur bi nga dëkkal bu ko xeeb bu ko bañ bu ko yab siiw na waxi sëriñ bi ci jëw wala yaxtab baadukum baada saddaxallahu alasim sëriñ bi nee na bu leen walaan seen dàgga bu leen lakk seen dàgga walaan sa dàgg mooy jëw ab jullit ndax boo ko dee jëw dañuy jël sa lu baax di ko ko jox lakk sa dàgg mooy jëw ab yéefar ndax boo ko dee def lobonam lañuy jël di la ko xëpp muy lakk sa lu baax bi sëriñ bi waxee lii sëriñ ma Masamba Jóob ni ko ma yaakaaroon ni jëw yéefar moom amul solo sëriñ bi ni ko moos ngeen jàkkaarloo walaan xëy na du sore wàlli di jox kaneen dàgg xëy na mooy am sàq waxtaan woowu wér na waxi sëriñ bi ci neewal nelaw kaanu qalilan min al-layli ma yahjaun sadaqallahu asim sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaarloo nee na guddi gi lu gudd la bu leen ko gàttal ci nelaw bëccëg gi lu sell la bu leen ko naxal ci moy wér na lool waxi sëriñ bi ci fetal inna yu yudafiu an illazina amanu sadaqallahu alazim maam Cheikh Anta mas na andi fital ci sëriñ bi ni ko baax na ci kër gi sëriñ bi ni ko Cheikh kii lum la may boo ko tegee mu xañ la ko wér na waxi sëriñ bi ci xareb Samba Sadio minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al axira sadaqallahu sëriñ Tuubaa xaadalawoo law maxtaarlanowoo nee na xareb Samba Sadio jaam buñ ca jàpp mënta takk ab sëy mënta añ màkk siiw na sàmba Sadio ab bërëb la la joor moo doon xeex ak Ahmadu Cheikh mi nga xam ni ab jullit la woon ci liñ wax sëriñ bi alal yooyu ca la joor jële woon lay wax muy jaam ya ak laneen xëy na lim doonoon ab jullit moo tax wallahu taala alam waxi sëriñ bi ci politique wa tajaloona risqakumu annakum tukasiboon saddaqallahu alacim sëriñ bi nee na politique baa gi mooy albondu minallah laam gi mooy laanatullah taa gi mooy tarku salaat kaaf gi mooy alkufru billah siiw na bonxudun minallahi mooy sori yàlla laxnatullahi mooy rëbbug yàlla tarku salaati mooy bàyyi julli wal kufru billahi mooy weddi yàlla waxi sëriñ bi ci ñaar ñooy juboole ak i waxam ci xëccoo wala tanaza'u fa tafshalu wa tadhhaba rihukum sadaqallahu asim sëriñ bi nee ñaar ñu juboowul nga leen di defar yàlla na nga fekk ci ñoom ñaar yal na nga fekk kenn ka bëgg a xam dañ koo tooñam déet ndaxte yàlla mu mën a jéggale buy yëg ni dañ koo tooñ kenn ka bëgg a xam dafa tooñam déet ndax mu mën a jéggalu wér na sëriñ tuuba xaadalawoo law maxtaar lawoo nee na xëccoo bum leen fekk ci leen boo ko moomee ak boo ko moomul boo ko moomul bàyyi ko boo ko moomee bàyyi ko bu demee bam yàgg dana ñëw ni la ay la yéwén moom mi ngi nii wér na ay mooy li am ba am moom nag fu mel ni fii rek lañ koy jëfandikoo te mooy loo xamutoon dem ba xam ko am na gone yu doon fa ba am ku jooy sëriñ bi ni ana ñu ne fii am ko ne ko ñun mu ni leen lu ngeen fiy def ñu ni ko dara mu ni bëgg dara kaay leen ñëw mu laaj ana ñu doon ak lu ñu doon gàññoo ñu wax kooko mu ni leen dama leen a bëgg a wax ku ci dund ba am lu ko naqari tem koy faj fajiin wacca gën a gaaw ana nu muy def bum ni damay def bam faju bum ni damay wax bam ndax boo nee damay def bam day soppi ko sawara lakka la boo nee damay wax bam faju day soppi ko gaynde fàdd la ana nu muy def day muñ su ko defee day soppi ko ndox mu sedd nga naan ko wér na gënjoo mooy xëccoo waxi sëriñ bi ci xeeti jataay yi wa imma yunshiyanaka shaytaanu fala taqud bada zikra mahal xawmi zalimin saddaqa allahu alazim sëriñ tuuba xaadalahu law maxtarlahu nee na gone fooki caaxaan rek moo ci juddoo toogaale jigéen mooy yàlla rek moo ci juddoo toogaaleeg buur rëy rek moo ci juddoo toogaaleeg boroom xam-xam sàmmonte rek moo ci juddoo toogaaleeg ko xam yàlla nag xol bu yiw rek moo ci juddoo wér na lool sëriñ bi nee na fu ñooñ yiw nekk yiwa nga fa fu ñooñ ay nekk aya nga fa naka fu ñooñ yiw nekk aya nga fa fu ñooñ ay nekk yiwa nga fa wow ay na maakuntum man amila salihan fa li nafsihi fa li nafsihi wa man asaa fa alayha wér na lool waxi sëriñ bi ci taryaax wa alallahi falyatawakkalil muminin mas naa am seexu pël bu tudd gaydum mas naa yël sëriñ bi bi nangu ko nim daan nangoo téere yi waaye nas tuun mu wàcc ko ni ko gaydum téere bi lumu mu ni ko téere la sëriñ bi ni ko kooku nee naa ko yaax fi suuf jàpp tawxiid wér na yaax mooy wàcc gu gaaw ter yaax léeg-léeg am ñu koy wax jublu ci lasaraar te mooy jëfandikoo alxuraan ngir adduna wala nu ko nuru loolu nag dara nekku ci sëriñ bi moo ko wàcc ngir jàpp gum jàpp ci lu ko gën a gaaw ndax moo ni yaquudu lii kun fa yakoonu maa urid walaysa yan xooniya cheytaanu marid waaye nag di jëfandikoo alxuraan ci anam gu xaraam mel ni rey ci nit wala dofloo ko wala soppi ab xolam walam xelam xaraam na nim xaraame ci fetal ak jaasi bu fekkee wëlbati gi ngay walbati ab am xelam wala xolam ànd na ca daganna waaye bañoon koo def moo gën wallahu taala alam leeraluk sëriñ bi ci baati wala fii wa ma arsalna min rasulin illa bi lisaani xawmihi li yubayina lahum sadaqallahu alazim sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaalawoo nee na dër bopp ak déjjër la li leen wutale mooy dër bopp da fekk lu la amul njariñ nga dëgër ca ba kenn mën a jële déjjër la nga fekk la amalul njariñ nga dëgër ca ba kenn du la ca mën a jële siiw na sëriñ bi mas naa laaj lan mooy lakk xol ñu ni ko mooy am lu la yitteel nga bëgg ko lool mu ni ñun de buñ amee lakk xol mooy gis nit muy xaati goj ci loo xam ni bu ca dëppul tàbbi sawara ñu bëgg mu bañ caa jëm tem lànk wér na mooy fas ak fecc max naa di dugg ak a génn sëriñ Tuubaa xaadaloxo law maxtaar loxoon ne loolu wolof di wax gis sa bopp bu fekkee am nañ ci dara lu koy nuru mooy ñu tudd ñu tudd kuñ bind ci tëkkale ndax fu mu fi amee rekk ñu bëgg bis penc di suba te loolu mel na ni gis sa bopp la wér na waxi sëriñ bi ci jaay ak jënd wa axalallahu albaya wa xarama riba saddaxallahu alasim mas nañuy laaj sëriñ bi mbirum jaaye génn mu ni leen xool leen Mouhamadou Moustapha ak Mouhamadou Faliyu luñ nekk mooy la gën wér na sëriñ bàññi ñaay mas nay dem ci sëriñ bi jaar fu ñuy wax caameen bakkura ci ku ñuy wax rek gay mu ni ko boo demee ci sëriñ bi nga ni ko am na taalubeem bu koy nuyu bu tudd Ibra Gay wala Ibra Gueye bu la laajee fu mu ne nee ko caamen Bakkura bu la laajee lu mu fay def nee ko day yaxantu ndax daa yor njaboot gu ndaw bëgg leen cee yor bi sëriñ Banji Njaay ñëwee ci sëriñ bi ni ko am na sa taalibe bu tudd Ibra Gueye mi ngi lay siyaare sëriñ bi ni ko fu mu ne mu ni ko caameen mu ni ko lu mu fay def mu ni ko dafay yaxantu xam naa bëgg naa xam lu mu war a def la wala deet sëriñ bi ne ko aha kay wa ahalallahu lbaya wa harama riba xanaa luñ ci war a def ak luñ ci warta def xam nga luy riba mu ni ko déedéet mu ni ko bum ci sàcc bum ci fon bum ci fen te na moom bopp alal ja bu ko mënee noonu rek mën na ko wa ilaa falaa wér wa ilaa falaa mooy bu loolu amul du ko man Sëriñ Tuuba xaadalowoo law maxtaarlowoo am na ku ko doon wax damay jaay te bëgg muy jar sëriñ bi ni ko dangay jaay lu nit ñi bëgg te yombal ko ni ko jaay jayu jéelu jahannama siiw na am na ñu ni wax na ko dama bëgg doom ju baax mu ni ko dangay dem ci kër goo xam ni lu lew lañuy dunde nga takk fa koo xam ni bëgg na la nga bëgg ko ay waajuram bëgg la mu ni ko damaa bëgg a tàbbi mu ni ko li yàlla digle loo ci man def ko lum tere nga bàyyi ko boo faatoo xëy na nga tàbbi àjjana waxi sëriñ bi ci fajo daawa ibadallah fa in allaha lam yada dawaan illa wadaa lahu dawaan fa in allaha lam yada daan illa wadaa lahu dawaan hadisun hadis la Sëriñ Tuubaa xaada lahoo law maxtaara lahoo nee na jàngoro boo ko nëbbee mu weer la wërna na sëriñ bi nee na ku jàmbat seen tawat ci na jàpp julli ñaari rakkaa ci bërëb bu wet bu sëlmalee jàng yaamaanihu téeméeri yoon ak juróom benn fukk ak benn bu noppee wax wam na min nii haasal marada daa di tudd turu tawat ja bu doo soj mu ni wam na mi ni haza zukkaam wam nahu min ni bi fadlika wa juudika wa karamika wér na lool kum neex nga wax ko ci wolof te mooy boo jàngee yaamaanihu ba noppi nga wax sunu boroom fegal ma tawat ji bu dee soj mu ni soñ mii ci sag baax ak sag tabe waxi sëriñ bi ci meloy taalube yi sëriñ bi nee ñi fiy ñëw ñett lan ñoo xam ni dees na leen misaal ci mbirum lawbe buy muy ab ngax akub joqi ak ndab lu yett ba noppi ñooñu nag duñ mën a demandoo siiw na ngax mooy wala gax mooy loo xam ni kenn laalu ko ba ko yat joqi mooy ndab loo xam ni tàmbuli nañ ko te àggul sëriñ tuuba xaadalawoo law maxtaar lawoo nee na ndaxam mbooloo mi fere yi daa mel ni ko ci amul doo am jàmm te moos am na ci mbooloo yoo xam ni nañ demee këleen jiite mi ngi mel ni nga am aw yëkk jolof nga bëgg ko andi ci njareem te boo ko jiitalee mu yës nga wut mbooloom nag yu góor ak yu jigéen yu bari dugal ko ci seen biir muy bëngeen defe ni moo jiite boo ñëwee ba agsi ca gétt ba nga ko bëgg a dugal nga ni ko ca yomb wëlbati nag ya siiw na pëngeey mooy dox bu ànd ak puukarew siiw na sëriñ bi neena na taalube hitte rek la war a am hitte nag mi ngi mel ni ndab mbirum sëriñ mi ngi mel ni géej ku ne ndab langa nga hitte woo ba ko rekk lañ lay duyal wér na sëriñ ma fari kumba lawbe mas naa wax sëriñ bàññi ni ko waxal ma sëriñ bi ni ko nekk fu mu nekkul metti na ma lool ndax sama xol du jug ci moom ma bëggoon nekk fi wetam bi ko sëriñ bi déggee ni ko hakasa hakasa kasal muridu al muridu la yadruhu tabaut wa innama yadruhu al iltifat am murid soreekub sëriñam du ko lor gestu moo koy lor nee ko fu mën nekk baax na wér na sëriñ tuuba xaadaloo law maxtaloo nee na bu leen ma sikk sikki leen lawbe bi wér na loolu lim ci jublu mooy ku ne na sa ndab toll la sa yëf di toll waxtaan wi daa mel ni waxtaanu juróom-ñeen fukk ak ñaar ci ginnaaw moo ko firi muy quatre-vingt-douze bi sëriñ bi nee bëgg gi ngeen ma bëgg moo leen di jariñ bëgg gi leen bëgg du leen jariñ wér na sëriñ bi mas naa wax sëriñ moo du Jaw faxa ni ko neen nit ñi ñu sant seen boroom mu ni ko nit ñi nee nañ ñi ngi lay sant sëriñ bi waxaat ko ko mu wax ko loolu mu waxaat ko ko mu wax ko loolu sëriñ bi ni ko buñ ko defutoon mu wàcc leen ak seen boroom siiw na loolu mooy gàttal gi waxi sëriñ bi ci yar ak teggin رباني النافع الوهاب أشكره ما دمت حيا بخول الحمد لله sëriñ bi nee na gone juróom ñaari atam yu njëkk ku ko xañ nguur taseeg buur juróom ñaari yi ca topp ku ko ko jox taseeg buur wër na xëy na daa bëgg a xamle ni gone bu amee juróom ñaari at danga koy bàyyi ci bëggam lum soxla nga jox ko ko ya topp nag nga yar ko sëriñ Tuubaa xaadalawoo la maxtaaloo nee na bokk na ci teggi ni murit gaaw a bu déggee wooteb sëriñam ak topp ndigal ginnaaw bu ko sëriñam digalee ànd ak njot bañ a bañ bañ a naafiq ulaika yusaaricuuna fi na lool sëriñ maam mas naa fekk sëriñ bi njaareem bu bi mu ñëwee sëriñ bi wàcc der bi mu toogoon jox ko ko nanguwu caa toog ñoom ñaar maase toog fi suuf siiw na sëriñ bi nee na jaamu buur bu nangoo nekk jamu buur du jaamu buur doomi buura doomi buur nag bu amee yar am na sàll wum war bu amee ay teggin am na yére yum waaje bu tabee am na ngànnaay lum xeexe doomi buur ju mel nii dëkk bum dem bu dul buur ba bokk ak boroom ga nguur ga te kenn du ko mën a faj siiw na sàll mooy fas wu baax sëriñ bi nee na kër gi ku yóbbu yar bi bàyyiwu fi dara ku ko fi bàyyi yóbbuwoo dara siiw na sëriñ Tuubaa xaada lahoo lahu maxtaara lahoo nee na yaxantum xam-xam dana lamb waaye yaxantum teggin du sëriñ Tuubaa xaadalawoo laaw maxtaarlawoo nee na lëf lu sori sori boo ko yóoteeg teggeen yu rafet ñu jox la ko lëf lum jige-jige boo ko yóotoog ñaayu teggin ñu sori la ko xañ la ko dootoo ko gis faawu am na ku ni ma mas naa nuyu sëriñ bi su jóot mu ni ko loo ci jublu mu ni ko dama gis ñu koy def rek sëriñ bi ni ko bu ko bàyyeeti wér na lool ku ñuy wax sëriñ faal moo ma ko wax rahimahullahu taala waxi sëriñ bi ci sëriñ maamoor jaara ak sëriñ mbàkki kajoor fa man zusiha anin wa udxilal jannata faqad fa sadaxallahu asim sëriñ tuubaa xaadalawoo la maxtaaloo nee na sëriñ mbàkki kajoor ak sëriñ maamoor jaara la ñu dugg bàmmeel yóbbuwuñ fa bor yóbbuwuñ fa bàkkaar siiw na waxi sëriñ bi ci li ñuy jàngal ko faatu rabbana agfir lana wa li ixwanina allasina sabaquuna bil iman wala tajal fi qulubina gillan lillasina amanu rabbana innaka raufun rahim sadaqallahu alazim Demba Kebe nee na sëriñ Tuubaa xaadaloo law maxtaaloo mësuleen yabal ci néew wax leen ñu jàng lu dul ñeen fukki laxlaas ak benn wér na Sëriñ Tuuba xaadala wala maxtaarala woon nee na ku jàngal am néew ñeen fukki lixlaas ak benn mi ngi mel ni nga fekk jaam buñ jënd ba ciital ko nga dem ña ko jënd jox neen lañ ko jënde wàcc jàmba mu dellu ci mbokkam siiw na kuy ñaanal Sëriñ Tuuba xaada lahoo law maxtaar lahoo li ngay jàng Sëriñ Tuuba xaada lahoo law maxtaar lahoo nee na ku koy ñaanal na wax lii allahumma bi xaqi wacci laahi taala alkarim صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي ولوالدي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وهب لعبدك وخليلك وحبيبك وخديم رسولك صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم وبارك وخليله وحبيبه عليه الصلاة والسلام بآله وصحبه ما أحببته واخترته ورديته له في الحال والمآل بلا آفة ولا كدر قبل الهبة وعند حصولها وبعد حصولها أبدا آمين يا رب العالمين ويرنا لول waxi sëriñ bi ci ñi nekk barsaq wa min waraihim barsaqun ila yum yubxasun alazim sëriñ Tuuba xaadalowoo laaw maxtaalowoo nee na ñooñoo faatu woon ca Tuuba ca pestu ba ca Jurbel gis ni gis na leen ñu war ci lu yéeme waaye kenn xamatu ko ci ngir màndi mennum Basiiru Séese moo leen wax ni fii day daa mel ni Jurbel la amoon na waay ju baax ju fi nekkoon ju tudd nangam jaar ci turu sëriñ bi siiw na Sëriñ Tuuba mas naa toog ba mu yàgg mu ree wax ni taalubeem bi ñuy wax Basiiru Siise malaaka yi dañ ko doon laaj kuy sa boroom mu gëdd leen ni leen ndax boroom bu dul yàlla am na ñu daw seen daw yooya lay ree wér na am na nettali yoo xam ni dañuy wax ni ni leen moom Basiiru a ilahun mahallahi ñu daw nettali bi nag gudd na te bari na ay wuute ci nettalin wi wallahu aalam waxi sëriñ bi ci warek adduna ak dëddu annama alxayaatu dunya laibun wa lahwun wa siinatun wa tafaaxurun baynakum wa takaasulun fi lamwaali wal awlaad kamasali xaysin ajaba alkufaara nabaatuhu summa yaxiiju fataraahu musfara ثم يكون حطاما وفي الآخرة عتاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاه الغرور saddaxallahu asim am na ku ma sa ñëw ci sëriñ bi ni ko dañoo nangu sama kër sëriñ Tuubaa xaada lawo law maxtaar lawoo ni ko man de amuma kër daa ni ko nit ku ne ñetti dal la am dal bu njëkk bi mooy biirum ndeyam dalum ñaareel bi mooy adduna dalum ñetteel bi mooy barsaq bu fa jigee nag door a dugg këram siiw na sëriñ tuuba xaada laxoo laahu maxtaara laxoo mas naa am ku mu laaj ca mag ña ni ko nettali boobu ñuy wax ci kooku doon nattu ay xaritam xam nga ko mu ni ko waaw daa di koy nettali bim demee ci xarit bu njëkk ba ni ko damaare nit mu ni ko seetal foo mën a jëm ba may ànd ak yow rey nit taxul mu dem ca xaritum ñaareel ba wax ko ko mu ànd ak moom ba génn dëkk ba ni boo tegoo yoon wii te waaxu xëy na kenn du la dab mu dem ca xaritum ñetteel ba wax ko ko mu ànd ak moom ni ko dañuy dem ba kere ñu lay rey wala mbir mi jeex mu ni ko dama la doon seetlu rek bu mbokk moomu nettali sëriñ bi mu ni ko tigi dama leen koo cax xarit bu njëkk bi mooy alal akuk njaboot ak lu ñu demee saa suy faatu lañuy ñuy di tàqalikoo moom xaritum ñaareel bi mooy ak dëkkandoo sasu su faatoo danañ ànd moom ba ca bàmmeel ba waaye duñ ko weesu xaritub ñetteel bi mooy jëf moom du tàqalikoo nit bu faatoo siiw na lii mooy gàttal gi am na kilifa gu mas a wax Sëriñ Tuubaa ni nga melee ni ko xamul adduna te xam ko lool Sëriñ Tuubaa xaadalahu laa maxtal ni ko xam koo tax ñu wàcc ko wér na Sëriñ Tuubaa xaadalahu laa maxtal nee na bëgg adduna mooy bopp bépp ñaawteef wér na lool Sëriñ Tuubaa xaadalowoo law maxtaaloo nee na lu juddoo ci topp ndigal lu ne mi ngi xaar ki topp ndigal ci buntu àjjana lu juddoo ci defi tere mi ngi xaar kiy defi tere ci buntu sawara lépp lu juddoo ci àdduna day yëkkati ko ba ku ne gis ko mu wëlbatiku nekku pënd wér na lool waxi Serigne Touba xaada la wala maxtaar la woo Serigne Touba xaada la wala maxtaar la woo nee na adduna dëddu na te kenn mënu koo jot àllaaxira dëng mën na te kenn du ko raw wér na lool Serigne Touba xaada la wala maxtaar la woo nee na bu leen ragal dee ragal leen la dee di fekk siiw na Serigne Touba xaada la wala maxtaar la woo nee nit ku boppam la am ak mbokam ak alalam ak jafam boppam bi bu tawate ba xametul ñam mu neex ak jigen gu rafet ñak nako mbokam fa sos mbokam momé bu ko taxawoo ca tawajja bu jébal ko boromam ñak nako alalam fa sos alalam jojé buñ ca fayé ay borom la ca dess mbokku ya donnuko ñak nako jëfam a fa sas jëfam joojee bu dee lu baax du ca gis lu ko naqari bu dee ab safaan wal xiyaasu billah siiw na sëriñ tuuba xaadalawoo law maxtaaloo nee na dëddu ci alxuraan ñaari xaraf rekk la laa laa laa taasaw ala ma faatakum wala tafraxoo bi ma atiyakum wér na lool maanaam li nga am bu ci bég mbégum puukarewu li la raw bu ci jàq wala nga ci tiit lu ñëw santal yàlla ci saahir ak ci baatin loo ñàkk santal te bañ a jàq loolu mooy li muy wax ci masalikul jinaan laata tafraxan di sababil mawjudi minha wala tahzan ala al mafxuri am na ñett ñu mas bind kaamil andi it ko sëriñ bi ba ñuy dem mu ni leen ma yóbbulu leen ba ngeen ñëw àdduna kenn ku ci ne yow dong nga ànd bu ngeen di dellu alaxira itam kenn ku ne yow dong ngay ànd buñ leen di laaj itam kenn ku ne moom dong la dee laaj waxi sëriñ bi ci bokk ak jigéen néeg wala jaxasoog moom iyaakum waddu xoola ala nisa fa xaala rajulu min al ansaari ya rasulallahi afarayta alxamwa xaala alxamu almawt alxamu xaribu sawji hadisun am na ku ma ñëw ci sëriñ bi di ko laaj ni ko dama am soxna ñu bokk benn néeg may laaj wutal ko am néeg ak ñu bokk benn néeg lu ci gën sëriñ ma radiyallahu anhu wokk ko bëgg koo xëcc sëriñ bi ni ko ma sàmba bàyyi ko da leen di andilub xam-xam daani ni ko xam nga paax mu ni ko waaw luy paax mu ni ko njëlbeenu baxaw mu ni ko xam nga ko daa di ni ko boo amoon sandaalu sedd ci sa biir kër nga buddi ko yóbbu ko ba ca sa biir tool seet garab ga gën a sedd nga samp ko fa tëdd fa dana la yóbbe naan te mëroo te naan te mëroo dana joxe jàngoro te ñiy mbaaxu ña ngi lay raw wala te ñiy paaxu ña ngi lay raw am na ku mas a nuyoog sëriñ paa xaadalawoo law maxtaaralawoo di ko laaj ana soxna yi mu ni ko wala taqrabo sina daa di ni ko ñooñu ngay laaj daa mel ni di nga jublu ci laaj bi ku la ni woon demal nuy ji leen nga dem nuy ji leen wala ku la ni woon toogal ñu ñëw nuy si la nga toog wér na sëriñ ma bañ ji faat si la radiallahu taala anu nee na am na ak guddi sëriñ bi ànd ak moom ba ca màng siinu xoram ba mu ni ko jëlal benn mu jël ab saako sëriñ bi ànd ak moom ba fa wetu jigéen ña mu ubbi yër yër bu tuuti ni ko sànnil te mu sànni sëriñ bi ubaat wér na sëriñ Tuubaa xaada lahu allahu maxtaar lahoo am na teen bu mu gaslu woon ni mooy teenub góor ñi daa wax jigéen ñi teen bii ku ci sa bët tege mën ngaa dellu fa nga jóge woon te xam ne li ngay wut doo ci am dara gasluwaat beneen teen ni mooy teenub jigéen ñi daa wax góor ñi teen bii ku ci sa tege man ngaa dellu fa nga jóge woon te xam ni li ngay wut doo ci am dara ginnaaw loolu gastu gasluwaat na beneen teen ca kër jigéen ña wax ni góor gu ci sa tege doom a gis yowmal xiyaam wér na lool waxi sëriñ bi ci diggante boroom kër ak soxnaam ni ñuy ànde wa ashruhunna bil ma'ruf saddaqallaahu al-asiim am na koo xam ni da doon jàmbat soxnaam ci Sëriñ Tuubaa xaadaloxo la maxtaarloxo mu ni ko nangu naa ànd ak yow ngeen jaamu yàlla mu ni ko waw mu ni ko kon nag dama bëggoon nga xam ni la taxoon ñu jox la ko moo di am nga jàngoro joo xam ni moom rek moo yor saafara soo ko mën a saafara te doo ci am bàkkaar bu ko defee nga jàpp ko muy saafara jàngoro jooju saafara nag boo demee ba mu yàgg nga bëgg koo jàppe ak dund da nga gis sikk ndax day jur jàngoro bari na yu ngeen di jàmbat te noonu dong la wér na am na koo xam ni daa amoon ñetti soxna ñaar ña xëy xëy dem mel ni dañ koo takkatoo mu yónnee ci Sëriñ Tuubaa xaadaloxo la maxtaarloxo ni ko ba ma demee ba toll ci àdduna dama ko bàyyi topp ko ba ma demee ba am la ma doon wut ñëw sampu kër ba am ñetti soxna ñaar ña xëy xëy dem mel ni dañ koo takkatoo ma bëggoon fu fekkee bu fekkee sikk si daa nekk ci man nga wax ma ko ma ñëwaan ndax ma defaru bu fekkee ci ñoom la nekk nga wax ma ko ma bàyyi leen sëriñ bi wax ndaw la demagun na mu ni ko déedéet sëriñ bi ni ko nee ko booba ba tey sikk si ci moom la nekk nafa dem buñ nangoo ñëw mu xam ni sikk si ci moom la nekkoon buñ nanguwute ñëw mu xam ni sikk si ci ñoom la nekk mu dem fa ñu daldi di ñëw wér na